donc kii tey jii euh, euh, damay wax ne un sportif moo taxaw bëgg a jëflante ñi nga xam ne aussi ay sportif lañu lii mu def nii du lu ñu bett yàgg na ko def ASC mën jël euh, daana jël dooleem jël ñaxam di ci sonn di jël alalam di ko jënd ay équipement di ko dooleel ASC yi donc lii bu ñëwee tey rek day mën ni lu mu feddali la ñu ko ci sant di ko ci gërëm parce que mënoon na ko ci bañ a fekk te bu boobaat kenn du ko jam mais comme dafa xam ne doomu Bargny la te lu jëm ci wàllu sport moom euh, euh, mu yàgg ci yàgg ci yëngatu donc bu amee possibilité pour dimbali jeunesse su Bargny dana ko def te dana ko def avec fierté donc kii euh, jàpp leen ne il est de il est il moog il yéen yéen a bokk le même komba lépp loo xam ne possibilité may na ko. pour mu war ko euh, def ci loo xam ne dana jëmal jeunesse su bar Bargny kanam incha allah loolu ci lay dox loolu moo waral lu mel ni cérémonie bii lii c'est première yàlla man bu ñu yàlla may jàmm euh, may ko wér defal ko sutura lépp loo xam ne njariñ la ci lu war a mën a développer sport ci Bargny incha allah lu mu ci mën moom dana ko def. loxoom mosul jógee si jeunesse su Bargny géej loxoom mosul jógee. su je kuy ak de Sénégal au Sénégal. def pour président de la République à donner le président de la République dans le département le président de la République pour pour dans le Sénégal Et si nous 31 jeux de maillot ak ay ballon ñu offrir que la jeunesse nuage. lolu vraiment dañuy wax né le président de la république Alioune Badara jour, Badara Diop mi ngi nañu ko téyal. am nañu man lu ëpp li mais defuñu ko tay monsieur alim Badara bu jëlé ci maintenant ñeu di jappalé la jeunesse bargnoise la jeunesse bargnoise maintenant par le nawetaan nawetaan jappalé ASC parce que li ASC la ko defal ñun les zones ñu nekkal fi ASC parce que zone bi aussi ASC la quoi je crois que c'est les représentants des ASC e qui forment la zone. Donc, euh, à mon nom propre et au nom du président de, la zone 4B, Sanharé, je suis M. Alim vraiment lii nous. ci content ci aussi la mais aussi pour que continue la jeunesse par nuance donc nous maintenant jeunesse te aussi di ñaan yàlla aussi yàlla yokk aussi ndomu tànk yàlla yokk am-am bi yokk man-man bi te xam naa ne aussi li ñuy wax rek li wolof di wax ku la dig ku la jox ndekki mu ne la dinaa la jox añ mais naa mën nga ko gëm. les écoles de football sont les orphelins du football à Bargny amul benn depuis sept ans à cinq ans amul benn doo loo bu ñuy jot bu jógee si école football les encadreurs d'école football ñooy jël seen poste di jël seen dépense di jënd matériel. C'était une école école football avec 410 gosses il se retrouve avec deux ballons d'entraînement dans ne da ngay liggéey très les qualités les li les am les joueurs yi fi football yëpp si football au niveau de la zone 5. ils ont j'ai compté l'autre fois 12 buts les 9 buts les neuf buts qui étaient marqués ont été marqués par des joueurs qui étaient formés par dans mon école football. Il amul a remise diplôme un accompagnement pour l'école de école football de recevoir donc bii tey bu ñu ko jotee daf ñuy day parce que alxuraan dañu wax ne orphelin ko japp ci orphelin ba muy jirim ba kuko defal yalla kuko defal benn yalla fuk na geste bi pour les écoles football a ko defal pour ay jirim ko defal yu je le dis haut et fort ay jirim footballu les écoles football moy la petite catégorie à barni. te y a plus de 10 12 écoles football à barni y' a plus de douze écoles football a des dem nañ bu mënutuñu mënutuñu dem y a taxaw nañ mënutuñu dem donc on vous encore on vous tend la main football